ñi ku caga bu ñu jàpp guddi sax prostitué boo wanee carte mu leer na da nga am carte ministre de l'Intérieur jox la ko yow tu es salon yi dem ñu wuti seen agrément boo demee APEX wala yeneen kii yi chambre je ne sais pas chambre de commerce ak procédures yi ngay am ngir am sa agrément agrément rek da nga naan société bi maa ko tuddee nangam sangam jeex na te lay am ci biir duñ ko vérifier salon de massage yu ci bëri sa sont des prostituées déguisées yu ci bëri ay prostituées déguisées lañ. te loolu état daf ko war a régulariser moo tax les kinésithérapeutes doivent porter plainte d'ailleurs sax am na ci may dégg ñu ne porter nañ plainte parce que dañuy def de fonction liggéey bi nga xamante moom la ñu jàng ay at gëstu ci am ci xam-xam war ko exercer ñeneen ñëw di ko mbubboo massage bind seen message massage neex neex nangam sangam nangam nga ñëw fa góor gu ne fuuti mu ne dung jigéen am na ñoo xam sax body body la ñuy wax koor ak koor ñu futtiku ko ñoom di la maase réew mi nañ ko waaye nañ réew mu Cheikh Amadou Bamba tëdd El Hadji Malick Sy tëdd fi maam Baye tëdd fi maam limaamu Seydina Limaamu Laahi tëdd fi sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaatu wa salaam hmm? maam bu Kunta Ndiassane tëdd fi Seydina Omar Foutiyu Taal njabootam nekk fi wax dëgg fa yàlla nag réew mi dafa war a nag sell ngir yàlla lépp nag li ñu ko yóbbee mooy malheureusement même agrément yi ak nañ koy amee sax ak loi yi ñuy doxe tugal lañ ko jële depuis 1885 loi yooyu noonu ñu jël ko dëxañ ko sa ñoom changé nañ ko bu yàgg ñu ci dox di naaj di tàññal tañax tañax yi mel ne kañuy kañuy kañuy bëccëg yaakaar na ñoo rey gaynde gi li ñuy doxal lépp ci loi dëppawul ak suñu réalité sociale amul amul suñu réew yi dafa am taarix réew bu ne dafa am mbatit li ñu naan mbatit taarix histoire ñu xool la réew ma dëppoo méngool ñu tëgg ko ca móol ko ca mu dox malheureusement boo waxee démocratie pays nangam sangam sans dégg naa sax waa Nations Unies que ne bon nangam sàngam euh, pays ay xeex LGBT yi dañ leen xañ yenn nangam yenn préven yenn convention yi nangam sangam parce que c'est eux qui gouvernent le monde jël suñu loi yi importé ko indi te dëkk lu ñuy waxee ubbi lu ne lañ fi ubbi. lu ne am salon yooyu feeñ rek am na yeneen yu fi ne réew mi bu ñu bëggee mu jag développé yu bëri nañ ko raxas li ñuul ci soow mi dañ koy dindi wante tamit askan bi kenn demu ñu des am na ci loo xam ne nii ñoo ko war a xeexal seen bopp ay salon yoo xamante nii daal lépp kenn mën soo koo wax population bi tamit dañ ci am part de responsabilité du état bi rek ah état bi dafa am lu ko war waaye askan bi dafa am lu mu warlook état bi te loolu daf ko war a def jàppale ko ci kinésithérapeute jàng format métier ay at nekk ci hôpitaux ci clinique yi nekk fépp centre de santé fu ne yow jël sa xale yu xees pecc xonq coy teg leen fa roccee ko ba mu neex leen di prise sa ainsi de suite et nangam ñu ne nangam prise nga dem fa ñu weer la yàq la moo tax données personnelles yi war nañu xoolaat bu baax a baax l'utilisation des réseaux sociaux parce que lu bëri moo koy amplifier il est temps ñu defaral réew mi jikko yaa ngi naax saay di yàqu réew mi fi mu jëm baaxul te jot naa ku dem ba fi ngay dem xamoo ko da ngay dellu fa nga jóge woon loolu moo am solo